waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah mbooloo mi ñoo ngi nii ñëpp di ziar ñëpp ci wàllu laaj bi ci kii géex rek géex bu bari te ni ko waxee noonu dafa gênant dëgg la ndax di géex rek géex gu tegloo noonu waaw yenn saa nga dëkk nit wala nga xam ku amee boobu jafe-jafe comme ni nga ko waxee ñi xamul lu xew nag jàppee ko càggante te mën naa bañ a doon loolu waaye nag géex dafa am ñaari façon ka ci ñiy géex dafa ci am ñaar dafa am ki nga xam ne doxalinam bu ko changé rek loolu mën na koo bàyyi kooku du tawat ci moom kooku mooy kanam mooy ki nga xam ne li ci ëpp biiram mu am air bu bari wala gaz bu bari yenn saa yi ci surtout ci air boobu ci anamu lekkin la wala anamu naan nii nit ki di naane ak kiy lekk-lekk bu xaw a bar di jàlle la ngelaw géex mën na koo yab waaw kii naan tamit naan bu bar di jàllale ngelaw géex mun na koo yàpp waaw sonal ko lool waaw ak ki bëgg boisson yu bëri gaz yooyu boisson gazeuse yi ak ñooñu nga xam ne dañoo bëgg sàq mi si ngom buñ toll waaw yenn saa yi nga dégg ku la naan si ngom day reesal lekk te yàlla xam na ne noonu la mu ne provoqué géex moom si ngoom waaw kon nag gis nga ne yooyu euh, dañuy provoqué géex léegi ki nga xam ne yooyu moom habitude am la da ko aadawoo ci ci xeetu lekkinam lay xoolaat wala ni muy naanee ndox lekkin bi bu mu bar naan ndox bi bu mu bar waaw su dee dafay jël boisson yu am gaz ñu ne bàyyi ko su dee ku si ngoom ñu ne ko bàyyi lu ko borom bàyyi rek géexi gi dañ day dañ waaw waaye loolu nag benn catégorie la ci géexkat yi waaye am na ñi nga xam ne géex jàngoro la ci ñoom wala boog màndarga jàngoro la waaw màndarga jàngoro la ci ñoom mooy ki amee jàngoroy estomac méttitu estomac yooyu kooku géex mën na koo sonal wala ki amee jàngoro ulcère kooku tamit mën na am jafe-jafe yooyu wala ki amee feebaru xol waaw kooku tamit ci la bokk ñuy géex di yàpp ak ñenn ci diabétique yi ak jigéen wérul waaw kon nag gis nga ñaar yooyu da cee nekk kenn ki comportement am rek lay lay soppi waaw ci anam ni muy lekkee ak yi muy naan am jàmm keneen ki nag jàngoro moo nekk ci moom kooku nag bu boobaa mënuñ ko ci yox tegtal te xamuñ jan jàngoro la ndax jàngoro jooju li ñuy traité jàngoro jooju bu demee ba tànne ci moom wala bu bàyyi ko rek géex yi arrêté ndax jàngoro yooyu jooju nekk ci moom mooy causé géex géex yu métti yooyu muy géex waaye ki nga xam ne mi ngi géex nag géex sonal ko waaw bi géex rek du tey ñu jox ko ci tegtal bokk na ci jàngoro yi koy causé ñu fàtte ko te lu lu ma ta wax la mooy jàngoroy hernie li ñu tuddee hernie hiatale balaa ñu sori ñu ñu boole ko ci hernie hiatale ñi ko amee ñoom tamit géex daf leen di yomb kon nag yooyu yëpp dafa dafa jar sayto ñu xam lan la d'abord waaw moo tax yenn saa yi joxe tegtal xaw a compliqué ndax géex yooyu da dul xam lu nekk ci gannaaw waaye teewul rek ñu wax ci lenn li nga xam ne mën na jàppale ku amee géex kuy géex géex yu bari yooyu li ci gën a siiw mooy jinjeer jinjeer baax na ci lool ci kiy géex te xeetu jàngoro yooyu mu lim yu bëri jinjeer da ci mën dara muy hernie hiatale boog baag muy jàngoro estomac waaw muy jàngoroy xol mën na ci dara jinjeer noonu la ay ci wàllu kiy géex géex bu bëri waaw yaa xam noo koy def danga koy def jus di ko naan saa yoo lekkee wala nga tucc tuccal ko def sa kaas def ci ndox mu tàng bu nuggee nga naan solo la neexee nga suukaree ko lem waaw naan am na ñi nga xam ne moom dañuy jël njar bi dagg ko euh, xolli ko dagg ko dagg yu sew yéey ko directement bu ñu lekkee boobu tamit lu ci am solo la waaw jinjar bi nga yéey noonu sàqame ko noonu rek mu mucc ndox mi lu ci am solo la sax si wàllu arrêté géex leneen li nag mooy ngun-ngun waaw ngun-ngun nag kenn du ci jël lu bari waaw moom da nga ciy cox tuuti def sa kaas def ci ndox mu tàng infusion waaye ba mu nugg nga naan am na su am na ci solo lool pour arrêté géex yooyu wala wàññi ko baax a baax li ci mujj mooy limon saa boo xëyee yow mi géex yëpp limoo nga paccal ko ci kaasu ndox mu tàng bàyyi bu nubb nga suukareeku tuuti lem naan soo ko aadawoo di def di ko jël suba si balaa ngaa lekk dara loolu prévention la ci wàllu geex prévention la ci wàllu geex xanaa ki amee jàngoro estomac xëy na ci ñenn ñi faroxaay limon bi sonal leen ñooñu nag mën nañ koo moytu waaye bu dee ñooñu moom ñu jinjeer boobu ñu njëkkee rek lañ leen di digal kon nag yooyu leeral lañ buggoon indi ci sa laaj boobu amma am na beneen laaj boo ñu laaj ci wàllu fibrom ndax xam nañ ci dara ak yooyu waaw incha allah heure boo ñu jëlee si suuf rek ñu waxtaan ci ñu nañ la ci joxe ay saafara waaw kooku dafa am mbiru mbiru boppam la waaw dafa am saa ay ay garabu boppam asalaamaaleykum wa rahmatullah